Mansour waa Géejawaay waaw waaw. mais mais Cheikh Top dafa mën a ñëw. Cheikh dafa mën a ñëw. mais euh, Lamine. waaw ñu gërëm bu baax nag waa Baye parfum Lamine. waaw sa parfum mu ngi fi jox jox nañ la parfum mu ngi sama oto. jox ko Jamaïcain jox ko ñu bëree bëree bëree bëri. waaw Baye parfum. non jox nañ ci taw parfum. ñoo mën ñëpp. ñaari mbëri am nañ ku nekk parfum léegi kontaan nañ ci bu baax a baax Sali. mais wuli bul dem foog monsieur le maire ñëw mais balaa monsieur le maire di wax Jamaïcain foog combat bi jeex. arbitre sifflé na grand combat bi. grand combat bi Lamine. tey lundi 16 mai 2022. Saloum Saloum fi woo Jamaïcain. ñu ngi en direct fii ci Lutte TV. Tréfan. gendarme monsieur le gendarme. ne ci diaspora bi. maaleykum salaam monsieur le maire Bour Sine moo ngemb moo ngemb wan ginnaaw noonu tent bopp bi. Saloum moo tent. ñaari mbër yaa ngi leewaato Saalum Saalum moo fekk ci Bour Sine fii ci dëkkam. diggante Saalum Saalum ak Bour Sine Saalum Dóor. drapeau Moussa le maire Djibril Thiaw maire Réfane Lamine drapeau Djibril Thiaw la ñuy lewtoo nii. xeex dañuy xeex wala lan. maire Réfane a ngi noonu Lamine. ñaari mbër yaa ngi leewaatoo Jamaïcain. Saalum Saalum Saalum Saalum pied droit la ak pied gauche ragal naa ci door mu ñu bëgg xeexay bëree. tolloo nañu. ci kawam. Bour dep dugal na ko coup dal Lamine. Bour dox na ci kawam kawam Saloum déplacé wu. bi jonkanal. Bour Sine door na ko Bour na ko oh. mu génn. Lamine. Saalum drapeau Jibril Thiaw du yomb tay Saalum Saalum fàtte naa kan la mujjee bëreel waaye buur sir moom nger bu sab la mujjee bëreel 15 janvier la suma juumul Saalum Saalum dafa xaw a gëcc lamb la men waa cinquième na toog arbitre buy taxaw arbitre bi toogal toogal arbitre arbitre tous écrit HLM la jógee moom Saalum Saalum waaye waa ji daw di jaabante kan la na toog benn place jaar na ci Ibrahima Ndiaye monsieur le gendarme jaajëf chef. waaye buur siin kii bawal. Saalum Saalum buur siin Saalum eh, xeex xeex ko. oh buur siin door na. lamb ji dama ci door mu daanu. mën naa cee nekk. oh. Réfane mos nañu gën nañu dund événement mel nii. buur siin ko taxawal. Lamine buur ko taxawal Saalum arrière na saako yi. avertissement Saalum ba avertissement yi du Saalum taxawal ci biir géew bi. Saalum Saalum. ak buur Saalum Saalum. ñoom ñaar dañuy rayante Lamine dañoo bëgg xeex combat bi. taw na jàpp tànkam. daan oh, na ko moo ko ëpp doole. drapeau xale. buur siin favori ci gën a nekk ci làmbu. buur siin na ko. favori sa laata ngi noonu. dara drapeau Djibril Thiaw waa Réfane bañ nañu. nee nañ du dëkk bi. bàyyi laata ngi noonu ci biir géew bi. Saalum Saalum am na déception. Saalum Saalum de mérite nga. am na déception moom Saalum Saalum. ay kilomètres nga daw. am naa ko parce que ay grand yu bari fii tey jii boo ñu yóbbu woon ñuy contact wala ñuy entraînement bu duñu ma daan bu dee xeex pratiqué naa ko parce que dama koy jàng depuis ma loo def ay dix ans wala douze ans war nga see mën a am expérience. Mhm. voilà kon nag maanaam man li may defaat di sant sama frère yi nga xam ne fu ma dem ñu nga fa. Mhm. di sant waa Réfane bu baax a baax parce que aw ma seen fay ñun Réfane la ñu am ak Bawol. fu ñu mën di dem si àdduna bi Europe fu mu moon di doon Refane la ñuy tiitaroo dañu gëm li ñu doon di ñaanal sunu monsieur le maire Diouf Faye bu mu yàgg fi te wér boo tax ay ministre ay député ay président parce que mu ngi liggéey te kuy liggéey dara jomb la waaw kon non Saalum Saalum waxoon naa ko ma fekkee entraînement nee naa la moom na nay wax lu ko neex mais man xool ma li mu indi sax lijjanti wu ma ko li ma indi laay lijjanti waaw mun naa ay daan naa tafaatin daan naa kii daan naa kii yooyu yëpp ay deuxième la. mais yooyu ay mbapat la moom moo ma woon def leen ëppoon doole daal ko na mu leen ëppe woon doole noonu laa ko doole tey yàlla mayewul day able voilà tey ëllëg ki subir ñun dinañ fet yoge suñuy rak ñëw nañu nangu dogal bu boobaa mhm. voilà wuli kaay sànni ci ñaari seen naa ko sax voilà jërëjëf kontaan nañ ci yow monsieur le maire kaddu gu kaddu gu mujj la doon. jox ko jox ko waaw. monsieur le maire bàyyi ko mu wax rek lu ah, baax lay wax lu baax lay wax. voilà lu baax la ñuy wax cest ñaari kaddu yi mooy. Uh-huh. Uh-huh. jamono dafa toll foo xam ne. Uh-huh. surtout ci département Bambey. ak jëm jii toog nun ñii dëkk ci tund wi. xam ne ma ngi liggéey. te mag ñuy jàppale. waaw nanu ànd nun ñëpp ngir yàlla fàtte suñu bopp jàppale ko ngir nu mën a jëm ci kanam. biir na ma ne suñ ko jàppalee sport dina dem biir na ma ne suñ ko jàppalee Réfane ak département bi dañ dem ci kanam bir na ma ne suñ ko jàppalee Sénégal dina dem ci kanam nun nag buñ ko foyee man naam xamuñu ko waaye ñi nekk ci réew mi ñi sori ñi nekk ci diaspora bi Sénégal gépp a ko xam kon yàlla na ko yàlla jàppale yàlla jàppale jeunesse bi yàlla jàppale sportif yi ñu jëm ci kanam di féliciter bu baax a baax a baax ñi daan tey encourager ñi perte ndax saalum saalum li mu def lu rëy la dafa ñëw tey bëre ak suñu doom bëre ak suñu jarbaat yàlla may suñu jarbaat ndam mu bokk ci sam ah. kon dañ koy félicité mhm. su neen du bëreek moom tamit kon Bour Sine du ko daan ah kon su nangoo ñëw fii ci Réfane bëreek nun mhm. dañ ko félicité ñaanal ko jàmm xam ne espor moo gagné tey ñu ngi leen suñu digganteek monsieur le maire nit la ak ay taalibeem nun nun waa Réfane ñi ànd ak moom moom sëriñ la ci nun nu doon ay taalibeem mhm. gëmuñu lu dul jàppale ko mu dem ci kanam yaakaar naa mooy jàppale nañ suñ bopp mhm. nañ ko fonk mhm. nañ ko téye mhm. nañ ko ñaanal ndax ku juboo la ak toute la jeunesse du département juboo ak xalifa généraux ak kilifa yu baax yi fi nekk nitu diine yi nitu aada yi fépp lay dugal loxoom ku jaara jàppale ngi ni maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen baalu àq su ma juumee maa ngi jéglu monsieur le maire waaw waaw euh, kaddu bu muj bi sama kaddu bu mujj mooy encore une fois comme li ma la wax sànq rek ci laay dellusi waat félicité waat encore une fois Wouly mhm. euh, nit day bëgg boppam mhm. te yi Refane mhm. dañoo am sañ-sañ am droit spectacle yu rafet yu ñuy organiser Dakar ñu organiser leen ko fii ah ah moom la Wouly def tey ça a été magnifique fête bu rafet la defal jeunesse su Refane tey te damay waxaat fii wuli saa boo jógee pour feetel waa ndawi Refane hmm. saa boo jógee pour bëggal leen hmm. boo geesoo dinga ma gis incha allahu rabbi saa boo jógee pour bëggal leen hmm. boo geesoo di nga ma gis incha allahu rabbi euh, mbër yi aussi ma félicité leen Bour Sine dara jomb leen dara jomb leen tey li gën a jàmp mooy tafaatin na nekk roi des arènes téye ko ba doyal jox leen ko man loolu xaar monsieur le maire sas na leen de mën nañu ko. mën nañu ko. mën nañu ko. parce que ku xam ñii. ni ñu màggee dañu màggee di bëre. ci mbedd mi. màgg ci fulla ak fayda. de vrais sportifs. des athlètes. leen daal moo dox seen diggante ak roi des arènes. Hmm. mooy ñi nga xam ne roi de arènes day wër-wërloo seen biir. lañ leen di daw. dañ leen ragal non non c'est ça dañ leen di moytu ah, c'est ça Tapha Tine tey mm-hmm. amul mbër muy ñeme song rek ne damay bëre ak moom roi des arènes na dem bëre tafaatin ngoon googu la koy perte te ngoon googu bu roi des arènes duggee Bawol mm. dina fi def vingt ans di ëpp naa def on verra on verra kon encore une fois féliciter waat toute la jeunesse de Réfane toute la jeunesse du Bawol wax leen ne maa ngi fi pour yéen bu soobee yàlla ci sax bu yàggatul lool dina am lu jóge ci mairie bi dugg ci mbër yi bu boobaa xam naa dinañ ko teg ci loxool euh, Cheikh Diouf ak Bada Bada Jon Bada Jon Ndour bu soobee yàlla dina am lu jóge ci mairie bi dugg ci mbër yi euh, parce que problème bi ñu amoon foofu c'est bon ñu expliquer ko problème bi ñu amoon xaalis buy génne ci mairie dafa am ay kayit yu ko fay génnee surtout buy dem ci association comme subvention malheureusement écurie mbër yi fi nekk yëpp amul buñ ci immatriculé Refane maanaam région de Diourbel yu ci bëri seen récépissé yi dakaar lañ ko amee donc dañu nekk association boo xam dañu jàpp ne Dakar lañ bokk boobu association mairie Refane mënu ko subventionné mais li ñu trouvé comme terrain d'entente mooy dañuy subventionné le conseil communal de la jeunesse bi nga xam ne suñu rakk suñu xarit Abdoulaye Faye moo ko jiite ci subvention conseil communal de la jeunesse boobu moom conseil communal de la jeunesse dina ci génne li jëm ci mbër yi ñu teg ko ci loxool euh, Cheikh Diouf Cheikh Anta Diouf ak Bada Dione ñu xool nu ñu koy defee ak écurie yi nga xam ne ñoo bokk fii ci ci ci Réfane kon ñu ngi santaat ñëpp gërëmaat ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. waa di sant yàlla bu baax Lamine vraiment fête bi neex na di sant waa Réfane ñëpp di sant aussi maire euh, Lamine lii lépp su ko mënee ginnaaw yàlla moom moo tax moo ma woon na ma wuli dama bëgg nga nga tegal mhm. waa Refane su fa teg combat bu ndaw xam nga ne bu sin mhm. su ma ko ñimee indi fii Refane ak Saam Saalum ah ginnaaw jàpp parce que nag du combat bu ndaw moom aussi di ko félicité bu sin maa ngi koy félicité Lamine nit ku baax la sonal lu ma ñu mayal bilaay sonal na ma yaru na sonaluma dara moo tax victoire bi jëmb la vraiment barke Mohamed. Saalum it nit ku aussi vraiment sonaluma nit ku baax la démérité kii mooy minaceru laat euh, buur di sëriñam di lépp muy baylaat Diouf <laughs> saltige la lu ne la doon moo moom itam sonaluma galas ah. saltige tey doo bari moo tax buur tey ma ne ba bëgg see saltige yi ba nag buur te day daan. Ah. mais nag aussi comme li mu wax léegi Lamine kii mbéy dañ ko war a jël ku bëreeg soq. Hmm. daan fii de ba balla hmm. daan ay champion yu bëree bëree bëree bëree bëri. billaay walaay xam nga man li ma nekk ci moom. reefan gépp mba ay mbir lañu mais kenn ubbi ko fi fit xam nga lan moo tax. Hmm. billaahi bu tey jii léegi boo ko noon bala ngay mun a avance boo ko noon wulli mën a indi avance moom bañut kenn loolu mooy mbër barke Mouhamed bi may teg combat bi la gars yi da dama da amul benn problème grand koo seet la ma wax koo jubal amul problème loolu dafa neexal mbër ko maire am na ñoo xam ne daan mais moom di wax ne amul problème grand frère koo jubool baax na. jërëjëf na yi jël. Mhm. buur maa ngi lay sant. ñan ñan ñoo la ci waa waa. bàyyi parfum aussi jox nañu ay parfum laat laat am nga parfum def naa cuuraay bi neex na buu di nga am parfum <laughs> jib coow meer ñëpp am parfum waa bàyyi parfum aussi di gërëm Amadou Tidiane Fall directeur DMTA nit ku baax fi nekk ci podium tribune seize barrières yi yëpp moo ma jox jox ma oto jox ma chauffeur jox ma ñu koy liggéey. jërëjëf ne barke Mouhamed. ba pare ma dem fa keroog mu jox ma enveloppe cinq cent mille xam nga lii neex na. ak ñen ki jox barrière jox la pa jox la lépp jox la paas. kii moom ba pare ne dama ko def ngir meer. ndeysaan kii nit ko baax la. kilifa goo dem ne ko damay tegram reefan def ko drapeau jib caw daan ah. sama xarit la dama dama ci jàpp wala si baaw toog nee ma après lam ji nang fa ñëwaat. Mhm. nit ku baax la. Mhm. maa ngi koy sant bu baax Amadou Tidiane Fall dicté DMTA. Mhm. Kéba Kanté aussi ñëw na maa ngi koy sant bu baax a baax. Amath Dieye ñëwul mais premier adjoint ñëw na. premier adjoint Amath Dieye tubaab tur Amath Dieye ku baax la di gërëm aussi Samba Ndour maa ngi koy gërëm li tii moom du ma gërëm sa fi sama kër la lii ni ma defal yombul en ah, direct Refane lii dafa ah yombul maire fi mu toll ñëpp a seetaan ka ma sa ka ma sa def en direct di gërëm jib général Moussa Fall. mais nag tey nag affaire jël nga ko au sérieux moom ba ma bi général bi. waaw colonel bi damaa fay cinquante éléments tey général bi ci boppam moo woo colonel bi ne ko est-ce que daron bi yëpp ay dem Réfane ci wulli quatre-vingts éléments fi ñëw tey lii mos nañu ñëw Réfane huit oto général Moussa Fall nit ku baax yaa baax yaa gore billaay walaay est-ce que daron bu fii ñëpp dafa woo colonel bi ne na ko bu fa kenn des na ñëpp dem ci lambi wuli bi merci moo moo général Fallou Faye jib de dinaa ko sant billet yi ma defar drapeau yi lépp affiche moo ko defar ne ma demal ba teg si lam ba pare doog maa fay barke Mohamed falu li neexul. ayca mu gaaw buur li neexul nga daal fi sa maa ngi koy gërëm. Jamaïcain moom du ko sant jib Jamaïcain mais dama bëgg nga xam ko. jàppaleel ma ko ku baax la dafa ma bëgg. inamu Jamaïcain fu ma teg mu ñëw Jamaïcain mii jib. moo la yóbbu woon ndar moo ma yóbbu woon daal ma daanu waaye moo ma jigit moo ma yóbbu gam ma doon liir jaar moo ma yóbbu fu ne li neex na bég naa si yow nit ku baax la jabe ah, Lamine merci Elimane merci beaucoup basey fis na gër la fis na gër basey bii mu sol fis na gër la mooy basey bu bees la dafa baax bëgg naa ñëpp waa Réfane galas jërëjëf laaj waaw ah waaw merci. ma sama atti bi gisuma ko. ma jaañ lendemain lendemain tabaski dañ fi may concert gratuit comme yaa jël drapeau maire nga ñëw bakkunu décorer la ci stade bi ñu ànd fi pa jom def soye lumière mm-hmm. may ko laa c'est de mm-hmm. li neexul mm-hmm. neex na waaw peut li ma li ma bëgg dolli tuuti rek mooy vraiment ngeen may ma comme ni ma ko waxee ma gërëm la général Moussa faal ak toute la sécurité bi mu envoyé fii tey vraiment professionnalisme bi man ça m'a ému ça m'a séduit vraiment c'est c'est très beau gendarmerie liggéey bu rafet bi ñu def tey vraiment c'est excellent mais aussi mu li ma santaat ko gërëm ko parce que buy def sargal monsieur le maire boole ci Amadou Tidiane Fall nga xam ne da di sama xarit ñu bokkoon nekk ci keppaaru suñu kilifa Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances Amadou Tidiane Fall nekk di nit ku baax li ma wóor mooy dafa mujj tënku nekkoon tey dina ñëw fii toog mooy directeur de MTA vraiment ma remercier ko pour li mu defal mon frère pour li mu defal wuli mais boppam loo ko defal parce que euh, moom bëgg na ma bëgg goo xam ne aussi euh, lu ñuy defal Jibril Thiaw da cay sawar kon Cheikh Ahmed Tidiane mon frère mon ami ñoo ngi lay sant di la gërëm di la yóbbante nuyoo ak cant gërëm aussi ci suñu kilifa le ministre ab lay daaw Daouda Diallo jërëjëf Ama Diagne kaay yéeg ah, mata njaay. guy genis na buur siin refan nga njëm baak waali njaay a sekk sekk néegi mbaaw mi ngi me ngi yoo fi doomi ree fan du ragal bu siin xale nga waaye xam nga ki nga doon eh, ku ci bëgg bur siin defal ni sa loxo ca kaw ma way buur yaaye woon gore bu juddoo reefan da xam ki nga doon nangoo liggéey fajar nga xëy daani sa doole doomi reefan du ragal ku di li may wax laajal wulli wulli waat taalibe Serigne Touba Balla sa buri Serigne Mbacke maaram seeli sari njoon bàyyi Muhammad xanaa yëgulooni jël doom tudde ko Seydina Muhammad jaratul ngay jaamu yàlla boo dee àjjana nga jëm nee yaane mbëroo ku ci man sa morom dang koy daan ñu bëre jib caw wuli dani ma majaañ nu ma mën mel jib cawoo ma ko defal li ma Rokhaya Sall wax ni ma baax na eh, jib ca boo ko gisee ba ña nga njëkk seen muy reetaan xoolal lu nekk ci xol feeñ ci jikko xoolal li ma lim ci say at lim ci li ma fekke fa wàll yaa fa daan dikkee la may surtout mam dalin mag ñi gërëm na la daal ndaw ñi wax na ko xoolal maire bi neexul leenam awu leen bi neexul leenam jib caaw ana ñi ko bëgg seen loxo ca kaw ana ñi ko bëgg seen loxo ca kaw Macky nee na waaw Marème Faye Sall sax nee na waaw waaree fan ñëpp nee nanu waaw wulli wulli na waaw man ma jaañ nee naa waaw ana ñu ko bëgg seen loxo ca kaw ana ñu ko bëgg xoolal bii meer ku ko am loo di wax bii meer ku la am loo di wax du maa la bëgg du maa la bëgg du maa la bëgg léegi nag concert bi lendemain tabaski la bu sooba yàlla jërëjëf ma jërëjëf mu noonu jërëjëf